war nañ koo amal ci dossier yooye nag lépp la ñu war a teg ci taabal ji daal di koy leeral la ko Le Quotidien yëglekaay dikkaat ci ndaje mu njëkk mi nga xam ne rek dox na ci diggante Macky Sall ak président Bassirou Diomaye Faye yéenekaay bi ne ñoom ñaar nag waxtaan nañu ci ay dossiers yu mag yoo xam ne rek dafa soxal état bu Sénégal Diomaye fay mi nga xam ne rek mooy njiitu réew mi nga xam ne rek ay atam moo gën a néew ci déndu Afrique Vox Populi nag ne ginnaaw ñeenti fan ñu amal élection présidentielle yi nag Bassirou Diomaye fay mi ñu tabb ci bopp réew mi ak Ousmane Sonko nag dem nañu ca palais présidentiel nag ci ambiance boo xam ne rek rek dafa jëm ci waajal fonction yi nga xam ne rek war nañ ko tàmbalee liggéey ca palais présidentiel Macky Sall dalal na démb nag jomaay mi ko war a wuutu nag ngir jébbal ko lenge yi prestation de serment bi nag ñu fas yéene koo amal ñaari fan ci weeru avril ca CICAD ci teewaayu ay chef d'état yoo xam ne daa ñu teew ca passation de pouvoir bi ñuy amalee nag foofee ca CICAD l'info yëglekaay ne Macky Sall ak jomaay kay amal nañu ab tête à boo xam ne rek dafa jëm ci mu daal di koy jébbal nag lépp loo xam ne rek soxal na état bu Sénégal ci passation de service bi noonu itam prestation de serment Macky Sall nag daat nay ànd ak Bassirou Diomaye Faye visité palais bi nag wan ko ruq-ruqaat yépp nag ginnaaw ay jàmm Macky Sall ak Ousmane Sonko jamono ji nag jàmm rek moo am seen diggante ginnaaw xiiroog ngaayoo bi ñu dëkkee woon nag démb ku nekk nag di nay saafonteeg sa morom Bassirou Diomaye Faye fas yéene amal prestation de serment ma ñaari fan ci weeru avril ca sikkat laata moo dem palais ngir tàmbali ab liggéeyam bés bi le jour na Diomaye ak Sonko nag tase nañu ak président Macky Sall yéene kaay bi nga xam protocole bi yéenekaay bi dippee ko ab coach bu nekk ci arrière plan bi nag gise boobee nag yéenekaay bi ne ñu ngi ko amalee ci ay waxtaan ay reetaan naka noonu ay accolade les échos yëglekaay dellu siwaat ci prestation de serment bi nga xam ne rek ñu ngi koy waajal jamono ji nag moom président Macky Sall yéenekaay bi di l'observateur ne ko loo ci xamul nag mooy organisation prestation de serment boobee nag Macky Sall ma ngi cay nag njiit yi bokk ci CEDEAO naka noonu waa Mauritanie waaye tamit dinañ ci nemmeeku ay invité surprise yu mag a mag l'observateur àdduna jëmale ci conseil des ministres bi ñu mujjee amal yéenekaay bi ne nag ñoom waa APR waxtaanee nañu fa seenug lajju lan moo ko waral waxtaanee nañu fa nag naka la ñu a def ba mën a amal politique bu jaar yoon fexe nag ba statut opposition bi nga xam ne rek ca lañ nekk ñu daal di koy assumer ak dignité def loolee nga xam ne rek moo di wéet gore wéetaliku gore enquête yëglekaay ma ngay xam ne ne jamono ji nag xeex bi tàmbali na ci ëllëgub toll nii nekkul ku légitime ci boobee parti di APR Ibrahima baaxum nag ne APR jamono ji nag nañoo am benn statut ginnaaw taxawaayu président Macky Sall yéene kaay bi ne Abdoulaye Daouda Diallo maître Sidiki Kaba Mansour Faye ñoom ñooñee nag mën nañoo doon ay challenger Sud Quotidien moom jamono joojee muy àddu jëmale nag ci yeesal ya ñu doon indi nag ca building administratif ci jamonoy président Macky Sall yéene kaay bi dellu soir ci ñàkk doxal yoon bi ñuy nemmeeku saay su nekk ci régime bi fi jugee juróom fukki milliards mu ne gouvernement bu Sénégal dugal na ko ci bâtiment boobu boobee nag doon ko yeesalaat waaye ba fii ñuy àddoo nag amut benn résultat bu ci tukkee loolee waral nag ba yëglekaay bi ne faaw rek président Bassirou Diomaye Faye nag def taxaw seetlu ci mbir yu ni mel lu ci mel ne scandale bu fond Covid 19 dossier bu Prodac coowal Petrotim ak yeneen di dossier nag faaw ñu daal di xeex lu jëm ci wàllu ger gi ak mal gouvernance jëm ci suñuy ressources publiques ak gaspillage bi nga xam ne rek saay su nekk dañu koy nemmeeku ci réew Sénégal addu jëmale ak Vox Populi nag ma ngay dikkaat ci coow la xew ca Pikine njabootug Taaya Jóob nag jamono ji la ñuy sàkku rek rek mooy yoon daal di def liggéeyam waa police nag démb génn nañ ci patt pataaral gi ñu nekkoon na ba daal di amal ab communiqué jëm ci mbir yaak na mu xewee Seydi Gassama nag di sàkku ci njiit lu yees li nag mu daal di fexee xeex nag lu jëm ci wàllum impunité fii ci réew Sénégal addu ci réew mi la tey jii nag yàllum la doon dalal nag di koo xamante ni nii nag ràññee nañu taxawaay bu am solo bi mu am ci wàllu aar bi nag rawatina baat bu neex bi nga xam ne rek saay su nekk mi ngi koy fësal nag jëmale ko ci luy jëmal mbëggeel waxtaan bu yaatu la séq ak Anna Thiaw bi la yëglekaay sunu